jërëjëf mbokk yi seetaan déglu mbégte am ñu dellusiwaat ak yéen seen cabinet Biorahma nekk te géej Sonadis wetu pharmacie Astel waaye seen cabinet Biorahma nekkaat ci yeneen i bërëb fu mel ni Mboro fu mel ni Ziguinchor fu mel ni Louga fu mel ni Thiès bu mel ni Touba bu mel ni Saint-Louis bu mel ni Rosso bu mel ni Tivaouane bu mel ni Diamniadio ngaa yi Pire ku ci nekk rek saa su ne yaa ngi seet lu baax lu ne fu mu ne nga wari ko indi ko. moo tax ñu daal di ñëw indil leen bii ngay seen gamme bi muy ñaari produit saabu la ak crème 100 pour cent naturel soo ko dee diwoo sa teint dina rafet macha allah comme ni ngeen gisee jongama ji ni mu mel éclat bi noonu lay mel. am na ñu ko jotoon a jël xam nañu moo tax saa su jeexee ñu jëlaat rax ci dolli saa bu ñu génnee ñu laaj leen lan ngeen di diwoo loolee nag mooy tax saa su ne ku ko soxla ku ne ni ngay def rek mooy nga teel a commandé. njëg gi deux produits mu ngi jar quinze mille francs ak foo ko mën a jëndee commandeel gaaw nga am sa gaam bu am